على من أرسل رحمة للعالمين السلام عليكم alquran la nu ko séddee ci biir koor gi ñu ngi ziyaara suñu mbokki bopp yi fi teew di ay kilifa rawatina ñi jóge Tuuba ci kër Cheikh Chouaib radiyallahu anhu Cheikh Chouaib ci moom la daara yem ci moom la xam-xam yem ci moom la doomu soxna yem tabarakallahu lenn la jëloon def ko càngaay mu di alquran alquran nag kenn du ko gën a xam borom bi moom mi ko wàcce ci yonentam bu tedd bi comme yàlla kenn gënu koo xam alquran nag te mu waxal boppam ci biir alquran ni ma faratna fi ma faratna shay'an fi fi kitab lépp loo xam ni doomu aadama dana ko soxla nee na indi na ko ci biir alquran léegi dañuy seet ndax kaamil bi dañu koy teg di ko xool walla kaamil bi li ñu ci soxla mooy jukki bu ñu ci dindi pour di ko nafar walla dañu koy ubbi dem ci ay profondeur pour seet lu nu ci mëna jariñ ci suñu dund ma na fil kitaabi min shay bàyyiwul dara seydna umar radiallahu taala anhu dafa daan wax ni baba àddunay tukki ki yemale alquran ci lu mu jullee walla mu yemale ko ci lu mu léemoo nee na du xam li ci biir alquran waaye ñu gis ni li ci biir alquran yépp li ci ëpp lu yàlla defloo yonent bi mooy muñ muñ dañu wax ni moo ëpp yiw fa yoonte wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la yàlla wax nee na ñu tooñ la nga fayu bu la neexee bu dee sa àq la waaye yàlla ne bu ñu mënee jël ci jikkoom jël ci jikkoom lu nu mën mu muñe nee moo ko gënal ma nettali leen xew-xew bu gàtt bu doxoon diggante Cheikh Alxaaj Malik ak Alxaaji Abdoulaye Niass yal na yàlla yokk seen leeru bàmmeel Cheikh Alxaaj Malik dañu assassiné waajuram maam Ousmane mi ko jur dañu ko rey mais ci kaw doom bu am jomm mu wax ni daf koy venger laaj alxaaji Abdoulaye ñas mu nettali ko na xew-xew ba demee woon mu ne daf koy venger c'est tout fait normal waaye alxaaji Ablaye Niass wax ko ni ko fayonte muñ moo ko ëpp yool mu ne ko kon maa ngi lay ñaan nga muñ ko mu dellu ba tey ci li yàlla gën sant yonent bi ba tey ci wàllu muñ ak lu mu metti metti nga muñ mooy li yàlla waxoon yonent bi fasbir kama sabara ulul azm min ar dama ko firiloo seen Cheikh Tidiane si ma ni ko noo déggee fasbir kama sabara ulul azm min ar mu ni ma yàlla dafa wax yonent bi ni ko bu la sa nawle gën a gore waaw te loolu ñi ngi koy ndangoo ci ni yonent bi daan jëfandikoo parce que lu ne woon nañ ko ko sonnal nañu ko tooñ nañu ko gaañ nañu ko lu ne def nañu ko ko waaye mu opposé leen muñ bu bu demee ba xat dafay wax ni rahima allahu muusa laqad udiya bi akthar min hada fa sabar waaw mu ni lu ñu ma woon rek wanoon nañu yont yàlla Moussa lu ko gën a metti te kenn mësul dégg fu mu jàmbat kon muñ ci jaamu yàlla la bokk eh, may wax ni bu nu la laajee luy alquran waxal ni c'est une source de grâce et de béatitude mu jeex parce que loolu tax yàlla wàcce ko mais jaamu yàlla euh, diisul waaw diisul maa ngi koy wax fan yi ma ni bu nu duggee ci weeru koor ni ma gisee tabaarakallahu nit ñi di ci am yitte ci seen jaamu yàlla ci yokk ko man mais kenn waxu leen ñu xaar ba koor jot dafa war a nekk seen quotidien xanaa lenn rekk moo ci dul bokk li ngay ndékki di añ di reer waaye budul loolu nag waxuñu la nga xaar ba koor jot nga door a def effort yokk say jaamu yàlla loolu moom dafa war a nekk bis bu nekk waaw euh, may gis ci ndakaaru seen façon dem juma itam nañu koy fonke ajjuma juma mu ni yëpp ci diine la dellu waaye lu ci nekk rek fexeel ba la ca war ci équilibre nga def ko ci ma wax ni ñun suñu ilim xam nga benn ilimaan lañu am mu di sayiduna muhammad sallallahu alayhi yëpp moom lañu gëm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 takk jéng ci tànkam wax ni du ko dindi fekk tariwul alquran moom mag mooma ngir xam li ci biir alquran sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu daanu nettali bi mu jógee ci daara ñëw ci waawoon fekk fa Cheikh Alhaj Malick nee na mu ñaan ndigal pour Seex Al Hajj may ko bu nu julleegee ba noppi mu taril ko li mu jàng ci alquran ne ba mu ko defee jàng tari ba fajar jot kaamil bi jeex nee na ci ëllëg sa Seex Al Hajj daf ko neexal may ko fanweeri dërëm ak benn mbubb ni ko maa ko tërale alquran pour woon la ni jullit yi war nañu seetluwaat xalaat parce que y a de rupture dans la vie des musulmans rupture def ci am parce que sa source boo ko wàccee doo amate feneen fooy nàmpe lu la mën a jariñ li la alquran di jariñ rupture yi dafa bari rupture yi dafa bari ba ci jaamu yéene yàlla ni ñuy jaamoo yàlla am na rupture waaw ba ci sommeil le sommeil am na rupture parce que kenn na la watul buy féexal sa yaram walla bu koy yedd ni kenn ku ne sommeil mécanique ngay nelaw léegi te mooy dëf fay sës rekk nga def ko kooku taxul woon ñuy wax waaye dañu wax ni ku sa xel dàq foo làqute la waaw alquran ñun bu ñu ko jëlul def ko mu di suñu référence def ko mu di suñu refuge leneen lu ñu wutit lanu cay am du tolloog quiétude bi nu alquran di jox ba moo tax kooku wane ni moo jur sëñ Cheikh Tidiane si la def te itam Sëriñ Abdoul Ahad dafa am lu am solo lu ñu waxoon ba ñu demee Touba ca ngan gam fa woon sëñ Cheikh dafa waxoon ni yéen waa Tiwaawoon kaay leen jël si seen dono bi nekk Touba waa Touba dem Tiwaawoon jëli seen dono amul lu ko gën a rafet loolu mooy dëgg ko defee ku nu ci tudde bés ci ñoom rek dafay nekk lu am solo ci ñun ñu di ko bége waaye di ñaanit ñi nga xam ni ñoo koy organiser yàlla di leen may ñu mën di ko euh, gën a organiser ndax itam fa tabaarakallahu toog nañ fi euh, journée boo xam ni kenn yëgu ko waaw kenn yëgul ni yàgg nañ fi kenn yëgul dara Eh, ñuy eh, wu ñëpp waaye ñuy eh, sant sang yu jigéen yi waaw sang yu jigéen yi ñoonu gën a diis mission waaw damay wax ni ñun sunu mission dépense rekk lañ nuy laaj jafewul waaye sang yu jigéen ñi luñ leen laaj dañ leen di wax fexe leen ba indi leer fa ngeen di sëy moo tax ñi nu yaakaar ñépp jigéen leen mucc seen mission tuutiwul kon ñu sant leen ñaana leen yàlla mu jàppale leen waaye ñu baalu àq ndax ci weeru koor lañu nekk Eh, te dafa am luñ nuy tooñee dañuy wax ñi sant si dañoo ragal koor <laughs> ma ne ak ah, kenn ñemewu ko <laughs> ëppante làmmiñ rek waaw sëñ Cheikh Tidiane si bu ma ko mësaan nit ñi nee nañu koor gi ren mettiwul mu ni ma li ñuy wax xamuñ ci dara <laughs> waaye tabarakallahu weeru barke la yal na yàlla may nu rek ñu mën ko yéwénal te yàlla nangul nu jàmm gi waaye sëñ Babacar si daf ñu daan wax ni a ah, doom bu ma gisee kuy gunge kuy teeru daf may jaaxal parce que man mënumaa gunge mënumaa teeru waaw mu ni wér rek laay ñaan ci weeru farata yi bu ñëwee yàlla defal ma wér ma mën koo woor ba mu jeex ma ñaan ko mu nangul ma ko kon yàlla na ko yàlla nangul ñuy kilifa yépp a ngi fi yu réew mi fa tabaarakallah amul kenn ku des ñëpp ñëw nañu te buñ demoon ba ëllëgit fi ñu toog duñ fa jóg kon nag yàlla na yàlla fay leen ci barke alquran bi nu terale seen teewaay fii te yàlla fay ñi ko organiser ba mu mën a taxaw yàlla dimbale leen fay leen ko tabaarakallahu ah sant góor ñi itam ndax seen taxawaay ak seen teewaay eh, dañu wax ni eh, waa kër Cheikh Souaïb bu yaay wax ci seen tur ma ne ah, mën na nekk waaw ma ni mën na nekk ndax maam ma waaw tabaarakallaahu maam maa tax te itam dañuy bég bu baax a baax a baax waaw sama doomu bàjjen eh, Cheikh Mahfouz sëñ Mahfouz fa nu tase mu ne ma sagare njaam yi waaw te moo ko moom wax na dëgg ndax bàjjan may fu ma ko gis moom li ma koy njëkk wax mooy na bàyyi waaw tabaarakallaahu loolu la yàlla def suñu diggante dara mënu ko yàq dara mënu ko tilimal parce que loolu la fi mag ñi bàyyi